waaw salaamaaleykum euh, tey jii nag euh, sortie bi may def dama koy def pour population rufisquoise bi parce que ñëpp xam nañ ni période nawet lañ nekk tey jii waa Tëngéej ñu ngi galéré galéré boo xam ni galéré bu bu bu ëpp dayoo la. parce que jamono bi ñu toll nii soo xoolee li xew Tëngéej dafa metti parce que tey jii xoolal mairie nord nan lañu mën a jëlee ban dem def ko ci tali Nimzaat bi entre Kër Xaar Mbay ak Fass Conteneur. ñu sotti fa ban boo xam ne benn oto mënut a jóge Dakar dugg Tëngéej wala benn oto jóge Tëngéej dem dakaar soo xoolee tamit euh, fa la ñuy wax hôpital Youssou Mbargane li ñu def Nimzaat def ko Fass moom la ñu def foofu ci tali bi nga xam ni état bi daf ko fa defaroon pour ñëpp di fa le maire ñëw sotti fa ban le maire de Nord sotti fa ban amul benn kenn ku mën a dem Youssou Mbargane fu mu toll nii ci nawet bi benn bi ci topp muy Colobane tey jii pont Colobane bi tey ni ñu ko defaree c'est bien parce que état ko def mais boo xoolee canalisation amu fa tey jii waa Colobane yëpp ñu ngi souffrir man nag je suis de tout cœur ak waa Colobane Guy Mouride waa Nord Nimzat Fass Santhiaba képp koo xam ne li mu mën a dama juum tey jii période bi ñu toll nii lii moo taxoon may wax ni Rufisquois yi war nañu taxool ñan la ñuy tànn di leen jox ay mairie parce que mënuñu leen tànn jox la mairie nga war a dem wuti ay partenaire ñëw defar dëkk bi su problème amee nga dem di ñaan ay ban soo ko simag fu ne nga dem fa di ñaan ay ban ay ban defarul dëkk dëkk relation moo koy defar il faut que ñu chercher ay relation def ay partenariat ñëw defar dëkk bi wasalaam merci